waa Sénégal ziar Afrique ziar monde entier seen mbokk Cissé Dia mi ngi ñëw ci tey benn rebond benn taxaw seetlu ci seen émission dégg-dégg ñu jóge ci tabaski di leen baalu àq di leen baalu àq di leen ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén yu bari bon tey rek ñu def benn rebondissement ci suñu émission yi fi jot am dégg-dégg dégg-dégg nag defe nañ trois numéros defe naa ci sur Facebook avant ñuy euh, commencé jàlloon na sur YouTube mais sur Samaga TV bi

taxaw euh, seetlu bi ñuy def nag c'est juste que am na benn am na quelque critiques yoo xam ne am na du ñàkk parce que ñu ñëpp matuñu man mii def émission bi matuma bon ku nekk et tout début est difficile ñàkkul ni am na ay failles am na yoo xam ne jaal na fii yoo xam ne peut-être war nañ ko mën a corriger waat c'est normal am jot naa ci ay critiques yoo xam ne war nañ ci gis naa ni bon ñi am nañu raison parce que nit bi lay seetaan mooy gis say défauts bon ba nga xamee ni exemple bon amna na ñoo xam souligné nañ euh, la durée de l'émission né nañ peut-être foo nga nga bàyyi xel nga xam euh donné la euh, connecté exemple durée bi nañ ko wàññi parce que gudd na nee nañ ñu wañi durée bi amna na ñoo xam wax lañ lolu mais aussi amna na ñoo aussi né nañ ci côté euh, ci man sama comportement mais regard quand je regarde de gauche à droite loolu c'est naturel chez moi lol man non la mel peut-être je vais essayer de d'être plus xaw on na lay def corriger ko mais lol non la quoi a une critique, c'était sur le côté hmm, vestimentaire am na ñoo xam critiqué nañ sama hein il faut que may doow ay ay chemise nice genre loolu lañ ko waxé n'est-ce pas am na ñu ko wax d'accord mais man pour moi, c'est pas important quoi pour moi, quand je fais une émission il faut essayer de comprendre li may wax euh, ban importance am peut-être ngeen xol objectif euh, euh, sujet bi ban la am c'est ça le plus important mais comme que souligné nañu ko aussi je vais essayer lolu aussi ma baye ci xel quoi parce que c'est normal bon mais aussi gis ngeen ni nit euh, di di di remercier nak ñëpp ñi nga xamni ne ñu ngi ñu ngi suivre dégg-dégg parce que c'est pas facile hein xam nga tay bon yombul ngay def benn émission sur Facebook ou sur YouTube bon am ñu taxaw di la seetaan ba lay critiquer même si c'est deux personnes qui me regardent man je suis fier parce que l'essentiel c'est pas que les vues qui m'intéressent parce que tey Sénégal fi ñu toll bu benn nit sàccoon ñu vidéo ko dugal ko sur YouTube balaa ngoon mu am 5000 vues tey bu benn nit saaga dugal ñu dugal sur YouTube balaa ngoon mu am 500 peut-être des milliers de vues mais wax peut-être euh, c'est euh, am nous ci peut-être lu wala la wala du du parce que Sénégal nous la le dañu yar ci ak peut-être amul mais li Cheikh daan wax chaque jour nit nous euh, borom la minorité de qualité nous minorité de qualité nous nga bu pas ko yomal xiyam Cheikh ñoñu ñoo koy soxal moy cette minorité de qualité donc boy def ben affaire bu ci xol bon peut-être les euh, milliers peut-être xëy bu ma ko parce que sur Facebook je commence à avoir am na émission yoo am deux et quelques vues mais c'est bien man pour man j'ai atteint mon objectif parce que l'essentiel c'était ma wax man c'était pas pour nit ñi déglu ma mais bëgg naa tam wax aussi bëgg nga ko la déglu mais l'essentiel c'était que man wax li nga xamné moo nekk sama xol ma dégagé euh, xam nga li nga xam ne moo nekk sama xol wax li nga xam ne peut-être moo ko xalaat naa xalaat naa ko ci réew mi remarque la parce que man ce que je fais c'est des remarques damay remarquer benn mbir xool ne lii bu ma ko waxee ça va peut-être dina am njëriñ ci réew mi wala ma wax ko parce que c'est parce que j'essaie quoi bon léegi nag bon dégg-dégg day ñëw ci beneen position day ñëw ci beneen anam mais la même chose ah c'est les mêmes concepts mais comme wax nañ ci euh, premier wala xadd karam naa bani aadama lañ tàmbalee mooy euh, doomu aadama cër bi ko yàlla jox ci ko suuf ñu ñëwaat ci beneen émission bi nga xam ne deuxième bi moo doon euh, wax bala bu génnee du dugaat nit war na xool li muy wax balaa moo ko wax toñ nañ ci waxtaan nañ ci troisième yi ñu ngi ñëwoon ci benn expression Pythagore bu mu naan un ne si aussi grand que s'il est à genoux pour aider un enfant Pythagore fi mu waxee ni xale mag du nekk mag tànka jugul pour jàppale xale

on va vous dire yi nga xam peut-être les prochaines émissions ci la la wax pour ngeen bokk ci pour ngeen bokk ci ça veut dire ngeen ngeen ngeen indi point de vue émission bi ñëw ngeen wax seen point de vue comme exemple prochain numéro maa ngi wax ci benn kàddu wolof bu mu ne lu waay di wuyoo da koy nuroo lu di wuyoo da koy nuro moy doomu aadama li incarné diko ko war na fexé bu nuro est-ce que sénégalais est-ce que ñun doomu adam, li ñuy wuyo chaque jour ñu koy nuro exemple quand on se dit musulman est-ce qu'on est des bons musulmans comment faut-il faire pour être de bons musulmans on est chrétien, est-ce qu'on est de bons chrétiens Comment faut-il faire pour être un bon chrétien Genre, nous nous connus, bon, nous, le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Est-ce que c'est vrai Est-ce que nous, Teranga, quand on se dit sérieux, Sarakoulé, Djola, tey ni ni ni ni seen ethnie yi mel dëggantaan ni ñuy doxee ci dignité ci ci fulla ci fayda yéen ni koy woo est-ce que est-ce que yéen a c'est ça quoi aussi est-ce que yéen a comprendre ça veut dire que yooyu dafa war a ñëw ci cadre boobu mooy lu waaye di wiyoo da koy niroo bu ñu jógee ci boobu ñu ngi dem ci une expression anglaise tubaab anglais dafa ne everybody can be a father but it takes someone special to be a dad américain bi nee na ku nekk mën nga jur mais pour nekk bàyyi dafa jafe ban dégg-dégg ngeen ci am ku nekk mën nga jur mais ñëpp mënuñu nekk bàyyi. Donc là, bon, on sous-entend, sous-entend peut-être la, euh, la, la, responsabilité, la fuite de responsabilité. Pour nous, peut-être ay pas lañ mais yaru ñu wala taxaway wuñ taxawanu bay peut-être avec ay ñolo bu dé am métier, xalat vous vous avez mën ngeen envoyer vocal scène dig dig bu la nexé sax vidéo mais ñi nga xam ñu fay siiw néna naa leen envoyé des vocales ñu boole ko ci dégg-dégg parce que man mënu ma def dégg-dégg man rek parce que sama dégg-dégg rek doyul donte naa def ay micro trottoir mais parfois tax boo ma envoyer ay vocal mën remplacer micro trottoir si mon numéro 77 538 03 50 sama numéro whatsapp 77 538 03 50 mu au bas de l'écran ngeen envoyer ci seen dégg-dégg ci prochaine émission bi mooy lu waaye di wuyoo da koy nuroo lan la Sénégalais di wuyoo te nuroo ko exemple joxe leen seen exemple ngeen les Sénégalais, chaque jour j'ai ñuy incarné lii nous mel ñu noonu wala sax nit en en quelque sorte parce que j'ai profité de l'occasion pour saluer hmm, mes amis ivoiriens qui sont euh, euh, qui euh, ko xamni ñu ngi ci Facebook bi à c'est grâce à cette émission que qu'on s'est devenu amis sama ami je vous salue les ivoiriens les tchadiens même j'ai un ami <laughs> américain qui qui qui m'écrit souvent Sunline Jackson si je prononce bien I tell you how are you okay You are a wise woman. I, I, I see every day your text, ok Vous savez, on a pas mal d'amis à partir de ces émissions sur, sur, dans la sous-région. Donc, li nga xam ne mooy luwaay de bu de da koy nuroo war ngeen ci euh, euh, war ngeen ci wax vocal si mon numéro 530 03 ou la vidéo ngeen wax ma tey lan la sénégalais incartenu sinon vous petee si sous commentaire pour nous préparer émission bi wax ci lan la sénégalais di wuyoo te nuroowu ko wala en général lan la di wuyoo te ko et puis, les critiques, bon, parfois, il y a des gens qui disent que parfois, l'émission doit être typiquement peut-être Wolof. Les français et Wolof, nous ne comprenons Nous, au Sénégal, on a un problème. C'est sérieux. Si nous Wolof bahul, si nous français bahul, si nous anglais bahul. Ok Nous avons tacalé, nous avons fait. Le Sénégal, pour nous, pour au moins, il faut que nous français. Nous donc, on n'a pas le vocabulaire assez, riche pour s'exprimer en français, mais il faut que français parce que tu es au foot. Tout le monde est français parce que nous sommes des jangles, français le jungle. Bonjour au Sénégal, euh, à Dakar, Wolof à français. vous devez tu degs serré, serré les à français. Ça veut dire que français, d'ailleurs, ils connaissent anglais sa langue maternelle, maternelle. Mais la langue nationale, peut-être connaissent anglais tu vois, mais c'est le français. def tey ñu ko nekk Senghor moo ñu ko yóbbee xaw ma tubaab yi ñu colonisé moo ñu ko yóbbee donc il ñu nangu ko liñ naan buum àgg na ci loos c'est c'est ça il faut parfois ñu dugal tout différence parce que même dans ci ci ci émission bi di ñëw war na ci wax même fii à dakaar di nga dugg kër goo xam ne y a des yoo xam ne ils ne comprennent même pas fii Dakar lañ juddoo yara ju mais pas li nga wax wolof loolu mooy Sénégal Nous avons fait un pour régler problème critique mais nous avons géré ça donc nous avons fait prochain numéro de pour exactement pour ceux qui vient de prendre le train en marche Nous parce que euh, euh, pas mal d'amis sur Facebook nous devons dégg-dégg c'est une émission boo xam ne day wax ci ay expression expression bu mun na jóge partout dans ci ci wolof yi ci anglais yi ci français yi ci alxuraan ci bible bi fépp expression bu nekk nañ ko firi pour fexe expression bi nekk luy jëriñee ça veut dire que yooyu ci dégg-dégg bi loolu lay wax quoi bu ko defee ñun dañuy génn suñu micro def benn micro trottoir trottoir laaj gars yi noonu déggee expression bi après ñoom bu ñu waxee rek bon ñu ñu ñëw def man comme lu tuuti lu ma jot a xam ak lu ma jot a mën moo ko ci plateau après on partage quoi ça euh, l' objectif ça l'objectif loolu mooy dégg-dégg donc nañ préparer émission boobu pour semaine prochaine loolu prochaine euh, beneen émission bi bu ñuy jàll ci semaine prochaine dañ leen wax beneen bi nan lay demee donc gis nga voilà war naa am lim nag parce que naa ah. mais c' est ça nan ñaan yàlla yàlla liñ ci bëgg ñu am ko et puis di ñaan ñëpp. di wax tabaski bi jàll na di baal di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq te nit dafa war a am taxaw seetlu am di def benn analyse gis ngeen tabaski bi jàll na xar yi au début c'était un peu compliqué mais à la fin xar am na léegi gars yi ñu commencé euh, ku ci nekk boo jógee ci mbir mën nga ci jàngat ndax ñu xam ni passé na gis nga tabaski bi lépp lu ñu doon calculer liñ ci luñ ci doon def li ci sonal sunu bopp passé na xar yi rees na yëri rangé nañ ko xam nga man maa ngi nii sol sama fi bon Non, donc il faut définir quoi c'est pas la peine de utiliser non il na voilà kon bon si rek moi ñu xel on est sur terre de suñu borom moo ñu ci ok Donc, à bu devez ko corps rek et ci li ko veut dire que orienté ci benen benen benen nguur bu chaque jour on parle de ndax nañ ñu ba ñun dafa nañ ñi sax léegi Macky Sall mooy mooy mooy moo moo dafa taxu place yàlla wala président Abdoulaye Wade wala kii que ce soit nañ bàyyi xel ni suñu borom subhanahu wa daf ñu fi indi si kaw suba pare jox ñu li ngay wax moo ni ñu naan la nature te nature boobu lépp luñ ci soxla mi ngi fi nañu nañuy euh, bàyyi chaque jour di concentré wu ci état yi nga xam ni ñu seen bopp rek lañ si nekkal ñu jéem a fexe dellu suñu boroom ñu fexe ñi nga xam ni ñun ay doomu aadama lañ war nañ ñun avec notre main avec suñu xel ñu a fexe ba ñu bëgg suñu euh, àdduna ñu am ko sans que ñuy bàyyi def ci état wala ñuy leen di xaar ci lenn yàlla daf ñu may xel kon xel yooyu nañ ko utiliser pour jëriñu mais c'est ça suñu borom wax na ko réew mu nekk ni mu bindoo ñiit yi mel noonu laa leen jox ça veut dire que yii ñiitu bon yi ñuy kaaf yi ëllëg bu nu amoon président bu nu gën a yaakaar bu ñëwee te tant que ñu changé woon ko bu duggee pare yaa da des na xelam parce que ñu nu ñu war a mel melagoon ko suñu borom noonu lay doxee amul sax demal ma ñëw donc dañ bàyyi xel ci loolu te jéem a fexe dellu suñu bopp suñu borom xam ne yàlla moo ñu fi indi lu ñu lu ñu war lépp lépp luñ lu war si ñu dina ko def tànk ñu ngi ci li ko neex c'est ça quoi aussi ci loolu di wax nag ñëpp euh, déwén di fekk déwén yàlla ñu yàlla jéggal jéggal ñëpp prochainement seen numéro dégg-dégg ñu war a wax ci nit wa lu waay di wuyoo da koy nuroo olof moo ko wax lu waaye di wuyoo da koy nuroo kon wax wax la ñu seen xalaat ñu xam ban xalaat ngeen ci merci